kàddu yi sama mbokki taalibe yi doon wax rek maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen di leen sant ci woo gi ngeen woo ñëw teew li ma leen doon doyee tam mooy ku ànd ci nit muy say bokk ngeen bokk bokk gi gën dëgër ndax bokk ndey ak bay li muy dëgër dëgër bokk Serigne Touba ko gën a dëgër bokk pas-pas ko gën a ma ànd ak ñoom nu bokk Serigne Touba ba noppi bokk pas-pas ndax lii du sunu liggéey sunu liggéey bu njëkk jaar nañ ci liggéey yu bare bare bari yoo xam ne xam naa ne ñi ma àndal ñëpp borom positif lañ yéen a ngi wax di tobbi tobbi sa sag loolu yëpp waaye borom pas-pas ni muy doxee moo gën a gaaw tobbiw sas kenn ku ci na ci ñëw xam naa ni am nga yéene defar def liggéey bi yow dong bu la ko yàlla mën la woon am nga yéene yow dong def liggéey bi te te te keneen du ci doon dara suñ daal baaxum baaxum gis naa dara suñ daal kon nag boo àndeek say bokk ñu yónnee la ndabul teraanga ndabul teraanga mënta weesu ndabul teraanga lu bàyyi ko ci Sëriñ Tuubaa teraanga ba teraanga jeex itam teraanga ji bàyyi ko ci Sëriñ Tuubaa moo ca moo ca gën moo ca dàq ana luy ndabul teraanga li mooy murit bu ne boo sañoon soo xëyee danga xëy liggéeyal Sëriñ Tuubaa boo sañoon da gont liggéeyal Serigne Touba li nga xamee ne jullit bu nekk boo sañoon doo manqué genn julli da nga julli suba julli tisbaar julli tàkkusaan julli timis julli gee jullit bu nekk boo sañoon da nga def loolu yi waaye murit bu nekkit boo sañoon di xëy ci Serigne Touba di gont ci Serigne Touba kon bu nu amee ndigal loo xam ne. dafa jóge ci sëriñ Touba Cheikh lu Muxtaar mii yàlla na fi yàgg te wér te kenn ku ne xam na ne Cheikh Sidil Muxtaar li muy jëflanteeg moom ci baatin rëy na lool te kenn ku nekk teg nga ci sa bët li ci gën a jege mooy mooy at miinu génn rek moo xam ab murit la moo xam ab tijaan la waaye ku amum nawet rek war ngaa sant Cheikh Sidil Muxtaar bi mu tëye taw ñu jaaxle lool ci tëye taw gi ba mu jàngaloo alxuraan ne leen dem ci am na ñoo xam ne ba ñuy génn ci jàkka ya taw baa leen fa jële kooku baatinam euh, mu liggéey loola ne la wër ne defaru nga ba noppi ndabul teraanga loo xam ne nag ak defaru ak yokk nga nga ci jë nga ci jële ak dolliku boo sañoon doo ko doo ko jëfandikoo mukk bàyyi say bokk moo tax ma ne ñëpp nañ fi daje jëwriñ ñi daje tey jii bu ñu bu ñu delloo wax ko njaboot ga ca ginnaaw liggéey bii ñu xam ne ak yokkute la sëñ bi dama koo jox ngir dollinu woote woon naa fi loo xam ne day sëñ Modou Rokhaya ko woote woon ginnaaw bi ma xam ne lii sëñ Modou Rokhaya woote at mu ne nan dajale addee jox ko sëriñ Tubaa day mel ni nan yeesalaat sunu pas-pas la ci jublu moo woote màggalu yeeslu kon bu sëñ bi ne nañ yeesalaat liggéey bii day mel ni loolee rek mooy dellusiwaat si te yeesal jaayante saxaaba yee ko njëkke te nun saxaaba yi rek ñoom la ñuy roy ndax Sëriñ Tuubaa moo wax ne damaa ñëw fekk ni ko Seex Bas waxe yoon wa rasulullahi jaaroon ak sahaba ya melni dafa am ñax daf ya sax ba yoon wa mu ne sutu ko xamé ma gajj gajj ba dindi ñax ba fàq ko ba ba yoon wi leer ma duggal ci sama mbolo and ak ñoom kon sahaba ye ñoy sun kay ñi ngeen def jotaay bi jotaay bi tay ku fi tok da nga na saxaaba yi daan jaayante bi ñu ànd ak yonent bi yonent bi day suñ borom may na ko moo tax suñ borom bind lépp bu ko neexoon xare bu muy dem suñ borom bu ko nee bu ko nee waxal ñaari doj yi séq séq noonu yi ñu daje noonu yem foofa yonent bi mën na loolu te suñ borom may may na ko ko te it sañ na ko waaw léegi jaayante gi ngeen jaayante fii niroo na lool ak jaayante ak saxaaba ya niroo na liggéey bi nag li Seex Bas jiital yàlla na fi yàgg te wér moom itam te suñ borom dolli ko ak wér ba liggéey bi muy liggéeyal magam ji baax ji Seex Seydil Muxtaar Sëriñ Tubaa yàlla na fi yàgg te mu àggale ko la mu jiital muy maam Cheikh Anta day amoon na ci Serigne Touba cër boo xam ne dal di wax pësteefu borom gaawaan ba borom gaawaan fekkee Serigne Touba nekk njaareem mu sol yére yi gome gom gu saf muy xatan xatan yi mag ñépp di ñu romb naa seex day li mu nekk sëñ bee ko ci bàyyi waaye gis nga mi mu sol nii xam nga ne lii waru koo sol ci kanam sëñ bi sëñ bi daal leen tontu ci baatin ndax li mu li ñu wax dégg na ko mu tontu leen ci baatin kër ga booba eh, kees gi sëñ bi nekk ñaxe na lool waaye am na taal bi sëñ bi daan taal ngaañ ngi néeg bi tàng mu di ci xool di bind taal ba yàgg na ba nga xam ne dóom bi kowe na lool mu daldi kees gi de bëggoon naa ñu seetal ko te génne mbalit mi dóom bi itam ñu tonni ko mag ñépp ku ne génn dem wuti aw gaal woo wootoon ne maam Cheikh Anta mbub moom mee doon xatal xatañ mu lal ko waa ngi doom ba def ca bale mbalit ma def ko ca def ko ca mbub ma ëmb ko dem sànni am na loo xam ne sax Cheikh Bass àggu ca moy bam ko sanne ba noppi dafa wat di wax di wax ak señ bi mag ñi wuti ñi ko doon jëw wuti aw gal bi ñu jub ne kees gi deg señ bi di wax ak maam Cheikh Anta ñuy ree ñuy wax ci kaw di ré ñi na ah ko mu ngay wax ak señ bay ré di mom dal li ko sëñ may dafa biñ duggé kenn ko ne ah, waaw ana li señ bi doon tonelu señ bi ne ciel am yag mu ne leen li ma doon tonnil doy Seex Anta ne na la ko mbubb moom mu doon xatan xati ngeen di wax ci la ko ëmb loolu yi la leen rawe Seex Anta mbubb ñëru ko dara ñëru ko sama jëmm ji rek ko ñor lu sagal sama jëmm ji ak lu tax ñëpp rek yoonu murit kenn du seen ñu solu bañ na ñii dañoo amul dara moo tax ñuy woote loolu doo nga tax mu sol li muy sol waye dara jaru ko ci limuy sol gisu gisu ko sax kon na ngeen def ni mom bu ngeen bëggee am li mu am loolu bu ko waxee te ñun yaakaaroon Cheikh Anta kon nun defe naa ne xawma leen nun war a def waaw dana war a jaay jaay suñ lépp jënd ko ngërëmul Serigne Touba dellu teg si Abdou Khadir di nee na maam Cheikh Anta musta gis merom Serigne Touba bu fekkee sëñ bi ne ci xaal ne ci xaal lool bu duggsee bu ko nee Cheikh ak si ngaa rek moom reejoy ànd loolu mooy tawfeex mooy ajjanay biir ak ajjanay biti ajjanay biir ak ajjanay biti nag bu fekkee ne Serigne Touba da koo defal maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta defal nu ko rafaatal nu ko fàggul ko waa këram ñëpp ak képp ku topp ci ginnaawam ku la fàggul àjjanay àdduna ak àjjanay alaaxira amoo payam kon sëñ bi lii mu nuy defarloo am na ñu bëree bëri ñu ko mën a defar am na ñu bëri ñoo ko mën a defar waaye suñu ñaar dërëm yi ñuy dajale moo ko gënal woo benn milliardaire mu ñëw defar ko bu bu fettas woon rek benn milliardaire lu mu ci lu mu fi bëgg mu defal ko ko. waaye suñ ñaar dërëm yii sëriñ Touba daan dajale ñaar dërëm yii maam Cheikh daan dajale di ko jox sëriñ Touba ñaar dërëm yii tabaxal ko néegam bii moo ko gënal téeméeri junni yoon leneen kon nag ginnaaw sëñ bi sagale na noonu. defal nu teraanga ju tol noonu joo ne mënuñ koo fay mukk ci àdduna néeg bi di néegub sëriñ tubaa nga xam ne ku moom néeg bi ku dëkkee néeg bi yaa moom jumaa ji loolu sëñ bi mënuñu koo fay mënuñu koo fay kon nag néeg bi buñ ko mënoon def lépp néegub or sax dañ koy def néegub or kon nan fi def néeg boo xam ne ginnaaw fi la sëriñ bi toog fi la sëriñ tubaa di toog su fi sëriñ tubaa Cheikh Sidil Muxtaar toogee ku ko fi mën a fekk muy kilifa àdduna walla muy kilifa diine donte buur màkk la bu génnee dana ne li néeg bi ma génn de li ma fi gis moo gën a rafet la ma la ca sama pale ba ca màkk ndax sëriñ tubaa ëpp loolu teyit yomb na lool noonu ko ba Bass waxe ne sëriñ Abdou Lahad moo ko daan wax di wax ne sëriñ Touba boo ko dee liggéeyal day toggoo coono bàyyee la bàyyee la bàyyee la ndam la coono bépp moo koy togg eh, la ngay defee la ngay faj la ngay defee liggéey ba moo la koy jox yombalan la ko lool ba noppi bàyyee la ndam la nag loolu moo moo am ci liggéey bii liggéey bi man sama xel dal na ba noppi xam naa ne fa ma yéene woon yaakaar naa ni dana ko weesu ndax la ma daan fekk ci xol yi rek laa ci fekk positif ba ma ci daan fekk laa ci fekk bërki dem ngeen dajale addiya joo xam ne ji musuñu koo dajale téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom yu tegal ngeen dajale ko indi ko fii ci sëriñ bi sëriñ bi sant ci lool te saabu muy muy la ko dale ci sëñ Abdou Lahad wala ci sëñ Modou Moustapha ba ci si sëñ Cheikh Sidi Mokhtar mi saa bu ngeen dikkee mu ne lii ngeen fi indi de yéen ko fi njëkk andi loolu mat naa sant yàlla bu baax mat naa sant maam Cheikh bu baax ndax pàgguteefu mag ña moo defar tey mag ngi démb ña seen pàgguteef moo defar tey kon nag mag yi démb ña lañ fàggoon kenn ku defe ne boo ca boo ca duggul du baax nar ngaa perte ñaari yoon yéen nag loolu du leen dal ndax koo xam ne kii addi ñëw na nga naan nga nga génne ñaari junni ba mu yàgg nga ne junni bi doy na ba mu yàgg nga ne naa ci def ñaar téeméer sëñ bi du ko xàmme nga dem ba mat ba mat téeméeri million ak nangam te mu wër la ne yow ñaar téeméer nga ci defoon da xam ne téeméeri million yooyu dañ la ci limaale nga bokk ci waa Daaru waaye yoo xam nga la nga ci def kon nag liggéey bi noonu rek la demee du ma ci sas kenn dara kenn ku ci nekk da nga xam li li la sëñ Tuubaa li la Sëriñ Tuubaa defal ak lam la jaral ndax àdduna mii luy jeex la fu jaar rek fu ñuy jaar di dem rekk la àjjana lan dëkkoon àjjana moo dàq lépp waaye ba seytaane fexe ba mu jóge fa suñ boroom jaarale nu àdduna bii diggante bu gàtt lan fi nekk ngir fàggu fi lu nu mën lu mën a delloo ci kër ga suñu maam dëkkoon muy àjjana kër googa nag lu ci gën a gaaw pàgguteef eh, bu ci gën a gaaw dellu ca kër ga ca àjjana bu bu bu bu gën a jaw bu gën a gaaw liggéeyal Sëriñ tubaa man gisuma ko kon nan nan jaay nan jaayanteeg Sëriñ Tuubaa te dëgg ci nun nan jëfal Sëriñ tubaa te muy dëgg ci nun kenn ku ne xam ne fii fu di jaar ñetti fan rekk la jàll te dëkk boo xam ne ni ko sëñ bi waxee léegi nangu na yóbbante waaye nangu wut yóbbaale boo dencoon milliard boo fi bàyyi ko dara du la ci topp waaye nag mën nga yóbbante milliard mu jiit ji la fa nga jël jël jëlal li nga yor boole ko sa pësteef def ko ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa ndax liggéey Sëñ Tuubaa bi dootu fi jóg waaye waaye jal bi lu mu bari bari dina fi jóg wala nga jóg fi bàyyi fi jal bi kon mu ñu delloo ci loolu suñu xel danañ gën a dolli suñu pastéef ndax am marit akub jullit wërta xool tey ëllëg rek la war a xool lu lu mu lu mu sonn sonn ak lu mu bari barile na xool ëllëg lépp na ko jëndee ngërëmul yàlla na ko jënde këru àjjana lool loolu la ñu baax ñëpp daan def ba am li ñu bëgg loolu la ñu baax ñëpp daan def ba am li ñu bëgg lii nag muy liggéeyub kër gi xam naa ne <coughs> noonu ko ba su waxee ndax man maa wax lu weesu li Seex Bass wax wala lu weesu li li li parom Pastef yi wax fii wóor na ma ne lu ci waaye def ak dolliku la lay indil sa wërsëg dana dolliku say xiwal dana dolliku lépp loo bëgg suñ boroom dana ko yombal suñ mu doxee daan wax naan buñ génnee àddee ji def bëggu Sëñ Tuubaa ba noppi bu noppee Sëñ Tuubaa defal na suñu bëgg Sëñ Tuubaa comme defal sa bëgg sa lépp baax te dootoo yàqu la kon nag nañ jël lépp delloosi ko def ko ci liggéeyu Sëñ tubaab bii ñi ma àndal liggéey day Sëñ Murtala mos nañu liggéeyloo fii ci ndaam ci waxtu wii xam nga lii boo ko seetee xam ne sëñ bii dajee def baatin ndax dafa woote ne dafa digle ne nañ dem ci tool yi ba noppi digle ne nañ ñëw ci kër gi liggéeyal ko kon gis na ci nun lu gën mbay mi ak ruuj bi gis na ci nun lu gën mbay mi bi mooy ngërëmal Sëñ Tuubaa ñi may wax nii doon àndee di liggéeyal Sëñ Murtala te sëñ te liggéey bi des ñu naa ma sëñ bi ñëpp ruuji nañ sëñ bi ceebu yi tàmbali na mm-hmm. mën leen moom daal ceebu yi tàmbaleeg wax set weeg bu liggéey bi àggul daal duñ bay mm-hmm. bu liggéey bi àggee nag lu ngeen soxla ci jiwu danaa leen ko jox ba liggéey bi àggee ma wutal leen jiw wu doy kenn ku ne ma jox la jiw wu doy bañ demee ba bi sori njëréer yi jaar mm-hmm. nit nit teet lañ lañ lañ jiwoon ñu ñëw naa sëñ bi de tool yi day yi day njëréer nañ faa jaar mën leen ah waa ji yéen waxu leen waxu leen jàmm kat waaw tool yi yàq nañ ko ñu ne ma waaw man leen an la ngeen defaloon si mu nag ñu ne alors de moom ma loolu de moom mënu ci dara moom <laughs> la njëriñ mënu ci dara loolu nag mooy lii rek kon daal liggéey baa ngi nii si Cheikh Bass wax na lépp nu mu demee te it la mu wax Cheikh Sidou Moukhtar moo ko digal moo wax ci làmmiñam Eh, liggéey benn liggéey benn bâtiment Daaru Salaam gépp xajuñ ci moo tax mu sas ko taalibib Daaru Salaam ndongal ndongo yi Cheikh Anta ne ko na ko yeesalaat na ko sa bàyyi defee woon na ko na nga loolu moom fas yéene koo ànd ak yéen la ci la ci la ci njariñ lépp mu bokk ak yéen waaw bu ngeen delloo ñi nga xam ne ñëwuñu ngeen jottali leen ko lii moo doonoon woote bi dama woote woon nag ngir bëgg dem ba ca liggéey ba nu tiim ko barab bi waaye ndegam sëñ baa ngi ci biir ba léegi waaw mën mën mënu ñëw ubbi xëy na siyaare ko ngeen xam ne tabax bii la waaye man dama naroon boo ñëwee daal di génne bagage yi nu dugg ci biir xool <laughs> waaye bu ñëwee ñu ne sëñ baa ngi ci biir ma xam ne eh, waaye loolu dana tax ñu xam ne liggéey bi doonul lu mën a yàgg ndax ginnaaw sëñ bi moom fu mu génnee ci jumaa ji fi la jëm si di liggéey bi mënta yàgg kon lu muy def nañ ci daal di jublu waaw man nag sama dara du ko fekke sama dara du ko fekke waaw lu ma am dinaa ko ci def lu lu ma jege te moom moom ko ñu ne ko moom bu liggéey bi matul lu waaye bi ñëwal ma jaale ko def ko ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi te toog nekk sëñ Tuubaa jërëjëf jëf maa ngi sant sama rak yi Cheikh Abdou moom si ñam di ak sëriñ Mbàkke ak sëriñ Jili moom sëriñ Abo ak bok sëriñ Jili ma moom sëriñ Modou droxe sëriñ Maam Balla kenn ku ci nekk da ngaa boole ñëw ak togg ay bernde indil ma ko fii kon ñoom ñëpp maa ngi leen sant te ngeen xam ne ni ko Cheikh Cheikh Gaye mi waxee léegi sëñ Ahmad moom sëñ Mor Fati ak sëriñ Jili moom Daaru Salaam ak sëriñ Abo ak njabootu Daaru Salaam gépp sëñ Mamor Touba Toul sëñ Saam moom sëñ Mbàkke Astu sëñ Am moom sëñ Mamor waa kër sëñ As Gede njabootu Daaru gépp ñun ñépp noo ànd séq liggéey bii kenn ci ñoom desut desut desut ñii dañoo teew rek teewaaleel ñi ci des kon nag yéen ñi teew maa ngi leen di sant bu baax di ñaan lu ngeen yéenee def ci liggéey bi yàlla leen ko sëriñ Tuubaa yombalal ci barkeb maam Cheikh Anta boo leen ko yombalalee ba noppi defal leen nag seenu bëgg may leenug wér barkeel seenug njaboot ubbil leen bunti wërsëg yëpp ba fu ngeen bëgg a àgg ngeen àgg fa mu am ngërëmul Sëñ Tuubaa nun ñëpp te kenn ku ci ne mu wóor la ne Sëriñ fàggul na la ci doonte liggéey bi amul sax sëñ bi fàggul na la sa kër gu àjjana ba noppi kon nag këru àjjana boo ko xasee am leneen lu fi dox ci diggante bi euh, bénéfice la jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah